en fait nous dañ ciy am mbégte bu baax nous am bu euh, quatrième édition où vraiment soirée bi gala nuit des champions avons une activité dans la mesure où nous avons Aliou euh, Aliou Badara FBI bokk sama au niveau du conseil de la jeunesse Donc, donc mu le euh, conseil communal de la jeunesse bu am que mais nous, au niveau de l'arrondissement d'Agran, au niveau du département même voire au niveau national nous avons Euh, si xam nañ njariñam par rapport ak liggéeyam moo tax lu mel nii bu amee muy honorer les champion qui sont dans sa commune kon ñun en tant que ay lider dañu war a teew pour soutenir ko si initiative boobu loolu moo tax ñu bàyyi suñu lépp ñëw vraiment pour nek ci wétam pour soutenir ko pour encourager ko pour jox ko euh, euh, wane ko comme référence comme exemple pour yenen conseils yi xool ci mom pour que en fait affaire bi gëna a yaatu pour ñu gëna jappalé jàppale jeunes yi si li nga xamanteni mom moy euh, sen contribution dans le développement de la localité. ah mais ñooñu mom ñun ñun ñen ñi ñu ngi leen di préparer pour que en fait lu ñu nekk di liggéey lépp muy la maison de la jeunesse muy le plan stratégique de développement les partenaires que nous avons. pour ñu mën ko teg si loxo yu baax kon donc ñun li ñuy wax si xale yi rek mooy nañu préparé wu nañu pare am engagement am détermination am motivation boo programme yooyu nga xamante ne nii ñu ngi fii te ñu ngi koy dawal bis buñ suñu mandat jeexee ba ñuy renouveler bu ñu ko tegee ñoom seen loxo du yàqu waaw di leen wax ni conseil bi tëjaluñ ko kenn ñëpp lañ ko tijjil képp kuy jeune rek moins de cinq ans yaa ngi ci biir euh, conseil bi kon donc nañu pour que en fait ñom bu leen joxee mbir duñ ko yaq ñun tamit ñoo soxor pour mën vraiment préparer la relève pour ñu mën gérer ces programmes et ces projets là et di leen remercier Warkha TV mom suñu télé la suñu sœur la suñu voilà mom championne la quoi té dañuy am mbégte ci liggéey bi mu nekk di def di entreprendre pour aussi tamit aider d'autres jeunes ko ñun suñu devoir la tamit ñu jappalé ko pour mu gëna jappalé jàppale yeneen jeunes parce que ko amul dara tay créer ñaari emploi ba ñatt boko jappalé mu toj dëkk bi